booba président Macky Sall nekkagul président ba muy am këram gee ca ngoor président Macky Sall nekkagul woon président daf ko ñàkk daf ko liggéey ba muy tedd président Macky Sall nekk nekkul woon ci nguur gi mais lan mooy problème bi ban am xolu kiñaan xolu soxor mën a dem fekk kër jàmbul jullit ni yow liggéey ñafe ba toll fi mu toll nga di ko taal. doomu Ngor ndaw yooyee dem di ko taal. Mhm. mu ñëw dëkk ci seen dëkk dëkk ak ñoom ndaw yooyee dem di ko taal ba far ba di toll ni ñoom xam nga lu mu defoon ci àdduna lan la lan la lan la visé woon nu may def ba tekki nu may def ba taral sama yaay nu may def ba tabaxal sama yaay ay immeuble nu may def ba taral sama yaay ci digg Sénégal lan moo tey ñoom ñu def loolu lu dul ñu dugal ci seen xel lu dul xeex ak taal ci loo xamante ni sii buñ ni woon président Macky Sall dafa ñëw pour jaay seen suuf wala président Macky Sall ñëw na indi na étranger jox ko ko waaye président Macky Sall lim leen koy def loo lan la gendarmerie. yow sa kaaraange. tax ngay génn di xaa di di xeex. léegi pourquoi li ma jaaxal ci wax ji. soxna Khady pardon pardon li ma jaaxal ci wax ji mooy pour pourquoi nga xam ne problème mu suuf la mais ngeen bëgg toxal wax ji ci Ousmane Sonko est-ce que loolu nekkul erreur c'est parce que moo monté ci xale yi loo xamante ni si. Mhm. musul am ci sénégalais yi sénégalais yi musul am fit boobu noonu ñu nar a def nan ngay gisee sénégalais bu defar këram. def ci xaalis bu weex tàll ca lépp daf ko ñafe ndax ba mu koy tabax booba Macky Sall nekkagul woon président président Macky Sall nekkagul woon président. <laughs> kooku su fekkante woon ci nguuru président Macky Sall bu Macky Sall toogee la ko def ba muy tey di président Macky nekkagul woon président. ba muy liggéey di sonn di dajal la muy am ba defal ca lee mu ca def boobu président Macky Sall toogagul ci lan moo tee ñoom ñu dem def ji loolu lu dul ñu di leen gëmloo ni leen lijjanti leen ay cocktail Molotov taal leen sànni leen i xeer dañoo xam lan moo nekkoon ci kër ga su fa ay xale nekkoon ñu taal kër ga euh, euh, kooku am problème lu ñuy wax su fa mag bu munul génn nekkoon ñu taal kër ga lan la ñuy wax ban xol la sénégalais yi am ba mën a fekk kër jàmbur di ko taal sénégalais yi nañu tiitan ah, ñoom ñi nekk ci opposition bi ka nekk ci pouvoir bi ñoo yem ndax bu fekkee ni boo meree nit wala nga am lu la naqari nga ñëw dem taal këram ndax nañu xam ni ay du yem ci boppu boroom ñi nga xamante ni ñooy nekk di ko reetaan naan farba lii farba laa nañu sóoraale seen bés bu bu baax ndax lii ma gis muy law ci senegal Sénégal wallahi lazim suñu ko arrêté wul. Mhm. barke Cheikhu naal Xadim danañ ko rëccu. man dama mësul gis fit bi sénégalais am ko te nañu def très attention. Mhm. fit ndax fit bi sénégalais yi am est que jàppoon ne état bi fi nekk ak ni ñuy doxalee ak ñoom bokkul ci li ko waral parce que arrestation dinañ ci ñëw euh, yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy gis tëj kaso daanaka li sénégalais yi gënoon wekk waxtu wu nekk bu ñu xëyee moom la ñuy ndekkee. Euh, Mansour ku deful yoon est-ce que yoon du tege ci sa kaw ku deful yoon ku jàdd yoon yoon tege ci sa kaw. mais est-ce que ñëpp man damay dem ñëpp ci yem. mais est-ce ci yem ñëpp a ñëpp ci yem <laughs> Mansour ñu ngi ci réew mi gis nga réew mi amul kumba am nday ak kumba amul nday xam nga lan la justice njaaxaanaay lay tëddee ku dem ba wóolootoo sa justice su réew nag yaa xam nga dem dëkk ji beneen dëkk bu la neex. soo demee ba gëmatoo si si su réew génnal réew moomu nga dem dëkk ji feneen uti ji waat feneen euh, euh, euh, nuñ koy waxeeti nekk étranger ni soxlaatuma Sénégal mais mënoo nekk ci réew moo xamante ni lu justice wax nga ni déedéet dafa defee nii ay ay ay ay ay détenu ay nangam politique da nga mus a gis kenn ku nekk di discours ci politique wala muy wax ci politique ki loo xamante ni ci politique la jëm ci moom ak ci réew mi ñu dem fekk fa jël fii ko fi diffamewul nit saagawoo nit tooñoo nit jëloo yëfi jàmbur kenn amul ci yow soxla mais ku fi tooñ nit wala nga saaga nit nga diffamé nit day dem ci yoon dalay porter plainte ca bu porter plainte yoon day def liggéey okay. ku fi violé doomu jàmbur mhm. ñu porter la yoon day def liggéey bu fekkee loolu moo tax ñu ne détenu politique dafa am kon détenu politique dafa dina am ca nag sénégalais muy man di sama moroom ak képp ku mu mën a doon ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité ba mu mat sëkk que lii am Sénégal mu dakk ak nu mu gën a gaawe ndax nañu fàtt nañu bàyyi xel de li am Mali jombul suñu réew mi te yàlla bu mu fi am te bu amee dina metti ci ñun te ñoom ñi ngi suñu frontière bi ñu ngi Kidira gii di ñu dégg bunt bu ñu mën a jaar ba dugg ci suñu réew la ñuy xaar. mais troisième candidature ci li koy yombal la bokk. troisième candidature waxuñu troisième deuxième quinquennat la ñu wax. <laughs> ci li ko yombal la bokk. Mansour taxawal deuxième quinquennat la ñu wax. mais di nga ma nangul ne ci li koy yombal la bokk. dara ko fi yombal ndax ñun taaluñu. xeexuñu. doo taal demuñu fenn mais ñu ko bëgg ñooy taal ñooy xeex. mais pour pourquoi bëgg bëgg ak bañ waru fi am. ñun ñëpp dafa am lu ñu tënk gis nga président Macky Sall tey jii suñu demoon ñun li ñuy bëgg-bëgg mu nekk suñu candidat conseil constitutionnel invalidé candidature hmm. dañuy d' ca la mu la ñu def. dañuy d' accord ca la ñu def ndax ni mu doonee ab démocrate ba Abdoulaye Wade 2012 ba mu taxawee ni damay def deuxième euh, troisième mandat. Hmm. ba conseil constitutionnel validé nu mu def. démocrate moo tax mu toog ci réew mi dafa génn bàyyi leen fa ñuy xeex ak a taal mu dem ca euh, fin fond du Sénégal campagne fa gagné électeurs yi toog nekk président ñoom nañu fexe dem defi ju noonu xeex mayewul nguur. ay électeurs mooy maye nguur ñoom su fekkee. nee na Sénégalais mais lu ko jiitu voté na sans carte. wote na. sans carte. sans pour lan. loolu doo dégg kii boobu histoire boobu. sans carte mooy lan. yow bàyyi ma waay sans carte ma yow yow bàyyi ma waay. déggoo biir defar ba mu dem. waay waay waay seen seen seen wax yi. dama fàttali non non non non euh, euh, nañu wax <laughs> nañu wax rek sénégalais yi li nga xam ni muy dëgg ci réew mi. xulu xaq wala kaana mu ran donte dangay dee waxal dëgg te Sénégal toll nañ foo xam te ne kenn ñemeetu la wax dëgg dañu dem ba boo waxee dëgg kàddu yu ñaaw ya nga cay dëgg ak lañ la cay fekk dana tax dootoo ñemee tey wax dëgg mais yàlla moo wax ni buñ tegoon paaka ci sa baat sax waxal dëgg ndax dëgg yàlla moo ko moom nañuy wax dëgg fi sabilillah ndax xam ni mhm. Ousmane Sonko lii mu bëgg a installé Sénégal ku taxawul wax ko complot nga ci mbir mi ku taxawul wax Ousmane Sonko lii mu bëgg installé Sénégal wallahi lanzim complot nga ci réew mi man Khady Diop de nee naa campagne tuma pour président Macky Sall euh, gagner Sénégal xam nga lan laay campagne mhm. pour Ousmane Sonko bàyyil ñu suñu réew mi c'est parce que danger la ci biirum réew gis nga saaku pomme de terre bu amee bu nëb bu bon bu ca nekk génne ko nga sànni bala moo yàq yépp te Ousmane Sonko pomme de terre bu nëb la ci biir saaku wallaahi su suñu jógul ci moom dana yàq Sénégal ndax li fi am su fee am fekk kër jàmbur est-ce que nekku leen di bëgg tardé ci jóg boobu loolu du état rek ñun ñëpp a ciy jóg li nga ciy jógee mooy Sénégal xoolal ñun ñëpp a ciy jóg mais bi ngeen ko dalee wax dafa yàgg oui ma Mansour mbir mi du xeex total suñu réew mi dañ ko moom dañ ko fonk man aw ma fu ma jëm bu réew mi tàkkoon samay doom amuñ fuñ jëm bu tàkkoon yow mii amoo foo jëm bu réew mi tàkkoon Sénégal la ñu am jàmmaarloo Ousmane Sonko ñun sénégalais yépp ñu génn en masse moom mu bàyyi suñu réew man nañ ko benn nit la mënta yàq suñu suñu suñu suñu réew mi buñ ko seetaan Ousmane Sonko na ko nit ñi wax dëgg mu xam lan mooy Sénégal respecté waat suñu réew mi nii mu bëgg a yore Sénégal am réew kenn du ko jote nii de ay carte électeur mooy fal nit su fekkee nee na sénégalais yi wóolu nañ ko waa yaa xayti jërul coow na bàyyi élection jot mhm. suñu ko votelee mu nekk président suñ ko voteelewul mu dem toog mais lan mooy problème mu jël xale yi installé leen ci loo xamante ne ndax nag euh, euh, nu mu tudd gone ga mbóoj euh, kii kii mbóoj nu mu tudd syndicaliste boobu Dame Mbodj mhm. ay audiom fuy fuyute na mu ne taxaw leen ci autoroute bi ngeen lii boo leen taalee attention soxna Khady oh, attention pour la audio damboj la audio damboj la audio damboj la bul confirmer audio damboj la dama ragal mu yónnee la ab citation moo xam na ma ko yónnee man faalew ma ko sa man ku dul wax dëgg man faalew ma la damboj faalew ma ko ndax du wax dëgg du àtte dëgg te nag am na lu yàlla wax ci na maamun am na lu ci yàlla wax te réew mi ñu nekk ko wax dëgg ko wax dëgg ñu ne ah waaw wax na lii wax na laa te ñi fi nekk di fen gëm seeni fen nekk fi bëri fi ca kenn du jàkkaarloog moom wax ko mag dàmbooj faale ma ko dàmbooj moo taxaw fii wax nu ñuy defaree cocktail Molotov fi nu ñuy def ba ba attaqué nit ñi ci ci autoroute yi nu ñuy def ba def nangam taxawul fii créé fi ni dañoo tiire ay ay liwam ku mënta maîtriser euh, lacrymogène mën nga maîtriser ay ay bal nañu waxante dëgg ok ba ñu sànnee lacrymogène dafa daw ba wàcc fa dàllam kon bu ñu tiiree bal. mun amoo maîtrise yu téye sa volant nañu xam te dëgg. ok ñu kon ne yu bari nga xam ne gis nañu ko jamono bii daanaka ci côté Pastef euh, loolu foogu leen ne dina doon loo xamante ni boole ko ak dox jàmm bi nga xam ne président mu ngi koy woote que ne mu ngi woote sax ci dialogue est-ce que jàpp nga ne mën nañu ànd ñaar tax ñu leen jàpp. dox jàmm ah moo tax ñu di leen jàpp xam nga lu tax ñu di leen jàpp man Khady Diop su ma defee lu dul yoon ci réew mi mhm. yoon day teg ci sama ci ci man loxo bu ma defee lu dul yoon ci réew mi yoon day teg ci man loxo mënuñoo nekk benn gang boo xamante ni. mais comme Bassirou Diomaye ku mel ni Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye lan lañ ko toppee. Bassirou Diomaye Faye wax dëgg yàlla ku nekk dégg nga ko chaque jour ak bêtise ba muy def man Bassirou Diomaye Faye sax man dama ni du ma du ma wax ak moom koo xam ni sa baay murit la sa yaay murit la nga judd ci murit nga dem ba tubbi. dem nekkub salafiste kooku du may débattre ci moom xam nga luy mudd bi foofu moom bu ci dugg ok bàyyi loolu dugg non non non dama ci ko loolu arrêté wuñu ko loolu waxew ma ni foofu lañ ko arrêté dama ni la tax duma ci sawar xam la moo tax duma ci sawar ku ñu tuddee sëñ Bassirou nga dem ba nekkaat ci beneen lii man kooku duma wax say duma wax say mbir te duma nekk di continuer ci say mbir xam nga boo ne salafiste nga tubbi kon ça veut dire que xamoo luy tubbi